kii boo xam ne aw ma occasion wax ci mooy l'intervention au Niger war mmh. nañ ko xool bu baax parce que dëgg la la CEDEAO l'avait décidé et ça avait été approuvé par beaucoup de présidents mmh. mais la done à changé parce que ba que CEDEAO di di décider booba xam ni ni woon il allait y avoir une levée de bouclier près des pays yi nga xam ni mm. dañu dañu nekk déjà ci situation boobu donc la situation se complique de telle sorte que yaakaar naa ni war nañu revoir leur copie mm-hmm. et que itam ñu xool parce que pays bu mel ni Nigéria c'est le Sénat qui a refusé carrément mm. Sénégal nag xaw ma kan mooy autoriser l'intervention du Sénégal mais war nañ ko xool xoolaat ko balaa ñu ci dugg. balaa ñu ci dugg waaw. merci beaucoup ñu dellu si nag ma yeggali. waaw sur ce plan là vraiment ça c'est un appel du cœur. Mhm. Euh, du ma ni sax euh, sama parti moo ma yebal c'est personnel. Mhm. vraiment mais un pays qui doit aller en guerre je crois que cette décision ne doit pas se limiter à un. petit groupe à une seule personne. waaw mmh, mmh. mmh. nañu xool bu baax. ndax mën nañu engagé même même nit moo ko waaw même l' opposition ak yooyu yëpp war nañu tey jii ni ñu woote woon nit ñi ba Covid bi dooree. ñu woon nit ñi laaj leen seen xalaat balaa ñuy dugg. ci guerre bi. loolu ñu laajte bu baax a baax. Euh,